tuubaa ngi wote besum magal gawaju ko man na waaj te ñew ndax serigne tuubaa ko xer la ci gan gor gi gee nga ki ndaw ñepp nak lan wo magal silen magal màggal ga ñepp ko min gor gi gee nga ki ndaw ñepp lañ wo màggal si leen màggaluk Tuubaa ko miin dix-huit ci weeru safar mooy bis ba bis ci yàlla ak yoneen baak Bamba teewe ko ku man ñëwal ku manu lit ba foo mën a xam ne bis ku cey góor-góorlu am ca lu duun bésum ngëneel la bu ànd ak jàmm bés la bu nii jaamoo ko sant ka berndeel gan yi yi ñuy bàyyi xel ñu ngi fii nii ci dëkk bi nga xam ne moom lañ naan Affe Jolof Affe Jolof bokk ci dëkk yi nga xam ne euh, comité d'organisation bu màggal gi ci seen caravane bi sur les traces de Cheikh Ahmadou Bamba tànn nañ ko ñu ñëw fi nag ci barab bi nga xam ne moo nekk suñu gannaaw muy barabu soxna Mati Ñang soxna Mati Ñang moom mooy waajuru soxna Awa Bousso mi nga xam ne moo jur Cheikh Amadou Fadal ndax euh, soxna Mati Ñang moomu nekk na jëmm joo xamante ni bokk na ak soxna Safiyatu Ñang mi nga xam ne moo jur euh, Cheikh Abdoul Aziz Sy Dabakh ndax soxna Mati Ñang bàjjanam lool kon mu nekk mbokk goo xam ne mbokk gu jege la woon fekk nañ fi ay kilifa yoo xam ne ñoom min nañ taarixu yoon wi min nañ taarix ni nga xam ne noonu la soxna Mati Ñang nekkoon ci dëkk bi waaye noonu ne la bokkeek maamaaram ba ci euh, ni nga xam ne noonu la euh, ñëwee ci euh, kër Serigne Touba ba am fa ki nga xam ne moom moo di soxna Awa Bousso kon mbokki téléspectateurs yi ñu ànd ak yéen fii nii ci affaire Jolof ngir jox leen lépp loo xamante ni day bàyyi ko ci dëkk bi waaye tamit ñu gën xamaat taarix mi nga xam ne moom moo am ci diggante ki nga xam ne moom moo di waa Afé Jolof ak euh, fi nga xam ne moom moo di waa kër Serigne Touba waa tamit waa Afé Jolof ak seen diggante ak Seydi Hadji Malick Sy kon ñu ànd découvrir loolu. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa bokki jullit yi bokki taalibe yi. bokki Afe Jolof Sëriñ Ahmadou Signal di borom dëkkub Afe Jolof monsieur le maire Sëriñ <coughs> Cheikh Niang ñoo ngi leen di nuyu te ci turu Sëriñ Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha xalif général ku lu mu di leen nuyu ci turu Cheikh Mouhamadul Bachir mi nga xam ne moo yor kaddu yoonu murit waaye jiite organisation Magalu Touba di leen nuyu ci turu Cheikh Abdou Lahad Gaynde Fatma mi nga xam ne lépp lu jëm ci wàllu communication ak culture moo ko jiite di leen nuyu ci turu Serigne Modou Mbacke si mii ñu àndal moom sëriñ mustafa si moom Serigne Malick Bassine di jëwriñu karawaanu màggalu Touba ñu ànd ak sunu sëriñ di jëwriñi yoon wi di sëriñ Cheikh Jooreel Mbacke di seen mbokkum jolof jolof dëkk ak fii ci Mbacke yi ñu ànd ak sëriñ Xaadi Jaxate bokk ci ñi nga xam ne ñoo nekk sëriñ tubaa ci daaray alxuraan yi te bokk ca njiit ya nekk Touba ànd ak sëriñ Mouhamadul Fadil si bokk ci njaboot gi di boroom xam-xam moom itam waaye ànd ak sunu bokk yi ngeen jàkkaar te kenn ku nekk représenté fi ab organe presse bu ne ci réew mi tey liggéey liggéey bu am solo ci diine diiney lislaam waaye di ko liggéey ci réew mi te loolu mooy li xabaar yi nga xam ne walla jeexital yi nga xam ne am na njëriñ ci réew mi ten di ko wane bàyyiwoon ci benn presse nag bu senegal bi ñépp a ñëw ñu jëm si ci dëkk bi nga xam ne dëkkub cosaan la ngir indil leen nuyooy Serigne Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa waaye tàllalaat leen loxo ci bokkook lislaam gi nga xam ne dañoo bokk pas-pas bokk yéene bokk aw askan bokk am réew bokk aw tund te loolu su bokk yu duggee ci biir jataay bi dana feeñ mu ne nañ ko nemmikul barabi mag ñi ku tudd mag ñi jëm si Jolof loolu la yàlla dogal ci senegaal li ëpp ci réew mi di ay taali jàngu di ay këri diine taal boo fi seen mu tàkk mën nañ ne matt ga ko taal jolof gi la bàyyi ko loolu nag képp kuy dox ci innamal mu'minuuna ixwa fa aslihu bayna axawaykum da wëlbatiku jëm si jolof te loolu mooy doxinu sëriñ Tuubaa loolu la sëriñ mun doon na ci ay waajuram moom la ko ay mata magam batale moom la fas yéene ànd ak ay rakkam mu ne ñu woon bu ngeen démé Jolof dekk bu ngeen jëm bu mu mëna doon su ngeen fa aggé ka fa gëna a jege sëñ Touba mooy kilifa jotaay ba na ngeen ko jox kaddu gi motax biñu accé ñu Modou mbacké siné jorof Jolof ku fa jëm ca am fa ab ambassadeur bu doon président réew mom jëm ci ambassade balay dal fi nak ambassadeur ambassadeuru sëñ Touba bi fi né moy Cheikh mbacké motax mom lañuy jox kaddu gi mu jot len nuyo serigne bi ak li sabab yoon wi ak kàddu yi nga xamne kilifa yi waroon nako wax su noppee danañ len jox kàddu gi bàyyi len ci sen sagos bopp ndax kat ba nuy jóg itam dañ na won fu ñuy dem danañ fa def interview jël fa ay jeexital waye dekk bi nga xamne fa lañ warona yandu ji moy Afé ñu len di jéggulu nak ndax yegg nañ mobilisation bi ngeen def ak coono bi ngeen ci toggoo waaye sëriñ bi dafa wax ne laa tafxalu shay'an bi xayri izni fal isnu shartun fi xabooli sa'ni te yoonu murit du dox mukk ci lu lu mu tegal ndigal moo tax bi ñu xëyee liñ ñu ko doon digal digal danañ tàggoo ji ba xam sëriñ bi soppi na ndigal li ci guddi gi wala soppiwu ko bi ñu xëyee nag di tàggoo ji sëriñ bi nekk ci ay yitte yoo xam ne moom yii ñooyam te nanguwutal ñu dem te gisuñu moo tax rekk ñu xaw faa naajee waaye lañ fay yàgg-yàgg dañ ne as gor daal doo ko ne maa ngi ñëw muy sonn ci yow ngay àgg di def leneen rikki waaye donte dañuy yendoo koor it nañ ko yendoo ba dem jolof waaye daal lii mooy tënk-tënk li ñoo ngi leen koy jéggulu bu baax nag te di leen xamal ne coono bu ngeen ci toggoo yëg nañ ko kon ñu bàyyee kàddu gi ak sëriñ Cheikh Mbacke lu ci wax mooy waxi sëriñ Mountakha lu mu ci wax mooy waxi Cheikh Mahamadul bashir lu mu ci wax mooy waxi Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma waaye lu mu ci wax mooy kaddu Serigne Modou Mbacke si mi jiite jotaay bi kon wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. bismillahi rahmaani rahim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. dafa mel ne kaddu yi di Serigne Fallou Alla Sylla daaneel rek tënk na lépp loo xamante ne nañ ko fi yëkkati ci ay kaddu. li ci waral sama kàddu yi weesuwul ku ne xam na ne ay at yu baree ngi nii sëriñ bi di liggéey lu liggéey bi ci bokk gi jiital sëriñ Modou Mbacke si mu di ko doxal ay yu baree bare te lépp dara fee ba agsi ci bisu tey bii bu ngeen gisee ma teew fi li ko sabab moom moo jiite jataay bi moo jiite it karawaan bi waaye bi muy jóg daf maa woo xamal ma ne ma dañoo bëgg ñëw Jolof bëgg a seet si maam Masamba Thiam mi nga xam ne moo doon jàng maam Maaram bu ñu fa jógee jaar Sine Demba bu ñu fa jógee dem Affe Jolof yandu fa daane ma li tax ñu bëgg a jaar Mbàkke Jolof ci Masamba Thiam mooy kóllëre gi nga xam ne amoon na ko ak maam Maaram li tax ñu bëgg a jàll Sine itam ku ne xam ne diggante siin ak Cheikhul Khadim radiyallahu taala anhu ndax moom yi nga xam ne moom la yàlla dogal mu jiite karawaan bi jiite jataay bi mu sëriñ Modou Mbacke si dana gàtt lool rek danga naan sëriñ Modou Mbacke si sëriñ Moustapha si sëriñ Malick Ba si maam Makhtar Penda ñu bokk ak maam Ousmane maam den boobu na kon ci dëkku maamam la ñu jóge ci dëkku maamam ci loolu itam bi ma ko xamalee ma ne ko euh, ñu ne ñu ne siin la tax ñu dafa dem mooy loolu aafe itam kenn tudd sëriñ bi te tuddloo aafe ndax ci yaare ba juróom yépp kenn ku ci nekk dafa ñibbi si ci aafe ñu mu am nag bokk bu yàgg boo xamante ne ma nga tàmbalee ca Assa Mbàkke Awa Ñang ma nga xamante ne mooy ñaareel walla ñetteelu doomu maamaaram ñu jox ko joxe ko fii mu am ci Ahmadou Mokhtar Ñang tafsir bu mag boobee nga xamante ne kenn ku ne xam na xam-xamam ak diggam ak sëriñ bi kon mu mel ni Maam Mor Anta Sali doomu bàjjanu euh, tafsir Ahmadou Mokhtar Niang moomu la ci bokk loolu di lu leer bi nga xamante ne wax na ne dañu bëgg ñëw fii itam ma ne ko ab dëkk boo ci dem da jaar ci buntu ba ndax ka nga xamante ne yàlla dogoon na moo jiit dëkk ba nekk meer ba yàlla dogoon na mu bokk ci famille boobu ndax tafsir maam Tafsir Baara Khoudia gën a xam ne ne mooy xeetu Cheikhul Khadim radiyallahu taala anhu maam Tafsir Baara Khoudia moom moo jur maam ma sekk nga xamante ne moo jur wa moom yi maam Tafsir Baara moom moo jur sëñ mu dafaa jamañam Touba maam Tafsir Baara Khoudia moomu moo jur sëñ Góor Saane kon buñ fi dee ñëw ci ak bokk kon duñ man loolu wàcc ci ki nga xamante ne moo fekk ko fi nekkal nekk ko xalifaam muy sunu maam Mor kenn ku ne xam na diggante dëkk bi ak Cheikh Mamadou Fadil boo gisee itam ñu ñëw defee si ko fii fi barab bi moom meer moo ki ko tàmm waaye ñu gani tafsir baara xujjëriñ gani ahmadou moxtaar ñang lañu bi ñu ñëw moom moo tànn xam la ne nañ dem defe ko ci buntu barabu soxna mati ñang te ku ne xam na ne sëriñ Moodu léegi la génne ci bérébu maam Ousmane mi nga xamante ne moo njëkk denc soxna sii ba am ci ko wax fat si yaakaar naa ne Cheikh Sidi Ani Malick benn doomu bàyyi la ko yàlla dénk mo maam Mati Ñaŋ mii ma ko jur bi nga xamante ne génn na àdduna ñu jox ko sëñ Bousso bi doomi ndeyam mu am ci soxna Awa Bousso am ci sëñ Afiye Bousso am ci sëñ Ibrahima Bousso soxna Mati Ñaŋ moom nag moo tëdd fii tey moo tax monsieur le maire ne kon nañ ngi ñëw defee ko fi ci buntu barabam yenn siyaare ko xam ko kon loolu mooy li nga xamante ne moo sabab jotaay bi li waral itam ma di ci jël kàddu mooy bi nga xamante ne ñëw nañu itam ma ma ko waxee monsieur le wax ko waa dëkk bi dañ cee am taxawaay bu rafet dëkk ci loo sawar ci lool ñu leen xam ne itam Serigne Cheikh Mamadou Mountakha li tax mu yebal fi délégation bii mooy bokk goo xamante ne xam na ne dëkk bi am nañ ko ak sëriñ bi tamit lu yàggaloo lépp rafet muy dëgmal bis boo xamante ne ci la wax ne dafa bëgguñu ñu santale ko ci boromam wax ne képp koo xamante ne sama mbég sa mbég la war na ma ci santale sama borom loolu moo waral nag te kenn ku ne xam ne ne mbégum Sëriñ Tuubaa maanaam kenn jiituwu leen ci kenn ëppalewu leen ci mbég ma loolu moo waral karawaan bi ñëw fii ngir xamal leen ne la ñu ngi waajal bis boobu te jii la séntu bu jëkk bi ñu ubbeese ko fii loolu mooy li nga xamante ne mooy tànk yi nga xam ne moo leen tax a jóg biñ ko leen ko waxee itam am nañ ci tawata lool mag ñi ko dale ci Jama euh, ak mag yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi yépp nag ànd akook monsieur le maire ànd akook suñ sëñ Maam ñu am ci taxawaay yu rafet rafet ba agsi fii kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm te di leen massawu ci coono yi waaye nag na ngeen xam ne fee ñu bàyyi ko seen kër waaye fi ñu ñëw itam sunu kër la di kër seen Mouhamadou Mountakha ku wax dëkk bi wax li ñu seq ci ak bokk Cheikhul Khadim radiyallahu taala anhu ñëw na fii ay yoon kenn ku ne xam na loolu ndax soxna Awa Bousso fii la nekkoon euh, yàgg fi lool gannaaw gi ba am fi sëriñ Yaafi Ñang gannaaw gi la fi Cheikhul Khadim ñëw am ci Cheikh Mamadou Fadil ak soxna Mariama Kunta ba waral soxna su baax si nga xam ne moo meññ soxna Awa Bousso tëdd fii ci barab bii loolu mooy li nga xamante ne mooy leen fi jeexat yi kenn ko ne xam na ne Cheikh Mamadou Fallé ko fi bari ay tànk la ñëw na fi benn budul ñaar budul ñett budul ñeent mépp mbokkum fi mas a jóge reba na délégation ay doomam ñu ñëw teew si waa affaire yi itam seen bopp miin nañu lool ëttu Touba ngir bokk gi ak wëllëre gi nga xamante ne yàgg na ba tax na kenn ci ñoom ku ne mën na cee wax loo xamante ne dana dooy sëkk ci ab xam-xam kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen xamal ne daal

من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا عادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واحتسموا بعدل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شلوا أرحامكم ولو بالزلام كن بقي السلام عليكم ورحمة الله wa barakaatu ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen wax bismillah ci làmmiñ wu sell ci jëmm ju sell fa tabaarakallahu muy sëriñ Ahmad Si du chef de village à Afé. di tatagal, tàttagal di leen dalal nee na ci biir commune doomam di sëtam di xaritam muy Serigne Cheikh Niang di monsieur le maire di commune à Afé Jolof di jaarale cant gi ak ngërëm li waaye ak mbégte bi ci ki nga xam ne tey ci jolof ñëpp bëgg nañ ko ngir engagement ci lépp loo xam ne diine la ci lépp loo xam ne ak bokk la mu wuutu fi Serigne Touba ak njabootam muy Serigne Cheikh coro Mbacké nga xam ne gàcc ngaalaama fa tabaarakallaahu yal na yàlla fay ko nee na mi ngi ciy jaaral ay cantam mu koy jottali sëriñ bi nga xam ne tafsir daam radiyallahu anhu daana wax naan doy say nawle doy na ndam kon boo doy doyee say nawle doy say kilifa doy say sëriñ fa tabaarakallaahu fekkonte ne bàkku jaadu na bu la neexee bàkku muy sëriñ Modou Mbacke sëriñ bi nee na mu ngi leen di dalal ci seen dëkku bopp di leen wàcce ci seen xëttu bopp waaye di leen jox sees ci seen këru bopp ndax ku ne xam ne ne aafe mënuñoo génn seexul xaddim seexul xaddim mënu leen a génn te it njabootu aafe gépp soob ne yàlla tey ñoom ñëpp fi lañ yendu ndax lan su fekkonte ne réew ak réew am na indigré kon ñu ne aafe ñoom Touba mooy seen indigré muy xale yi ndax mooy seeni tool mu soob yàlla it nag Touba gépp xam loolu ci aafe kon sëriñ bi nee na imaam yi nga xam ne ñoo ngank jumaay aafe yi ak jàkkaay aafe yi nee nañ bés bi ñoom yëg nañ ne bés gën a ko rëy ndax ku toll di njabootu sëriñ Touba nga xam ne li mu liggéeyal yàlla liggéeyal ko yónnentu yàlla Muhammad ba tuddee ko xaadim rasool njabootum fu ñu jógee fekk si njabootam su fekkente ne mbégte jullit am na walla feetu jullit defe naa bii benn ëpp ko ci sëriñ bi daal sëñ bi nee na seen yoon wii ngeen def te ak bokk lal ko te sëñ bi tudd ko léegi innam la moom yi noonu exwatan ba aaya ba jeex fa tabaarakallaahu lañ cee ñaan rek mooy yoon wi yëpp yàlla nay cant ak ngërëm yàlla na tabbi ci ngërëmal yàlla suñu borom subhaanahu wa taala sëriñ bi kontaan na bég na amut lu ëpp lii njabootam tey bañ xëyee ci suba ba ba fi nekk nii kenn génnul baas bi ku demit da nga dem pour waajaat moom sa bopp pour delsi kontaan nañ bu baax bég nañu lool di wax alaaji wàdd la ma waxoon ne naa ko wax sax moom fan na ko wax waaye alaaji say bopp nee nañ di aafe cant bu dee benn ñexel na la parce que lii bu amee alaaji yow la perte sa temps bàyyi sa liggéey foo toll fu ne yaa ngi dem Touba ak ñëw téléphoné ak ñëw di jox ko saa su nekk ngir lan ngir sagu aafe jolof ngir teraanga aafe ngir xam ne ngir xam ne ngir xam ne ñi fiy ñëw seen tànk fu mu wàcc rek barke wàcc fa parce que rabbi anzalni munzalan mubarakan wa anta xayru muslim aaye ba jeex am na ñoo xam ne fu mu wàcc rek yàlla wàcc fa barkeem te ñuy ci bokk boroom xam-xam. ak saxaaru dugub ñoo yem dugub foo ko becc am lu fa des waaye boroom xam-xam fu mu wàcc bay fa ba bay fa leer te ñu ci lañ bokk kon alaaji say bokk ñu ngi lay gërëm parce que lii tey bu doonte lu ñu maye la yaa leen ko may bu doonte ne lu ñu jaay la njëgg yaa ko jënd ba noppi yàlla yàlla fay la dolli la sutura yokk sa confiance bu baax macha allah. xol daal sedd na wax dëgg yàlla bëggoon nañ kàddu yi gudd waaye xol bu seddee rek wax dafay jafe xolit bu tàngee aussi wax dafay jafe waaye lañ bëggoon wax app na lii sëriñ bi daal soo delloo ak jàmm nga wax sëriñ ba ne ko sa bokki aafe di sa njaboot ñu ko bàyyi xel ñu ko sopp ñu koy ñaanal yàlla seesu xaadim sol bi mu toog yàlla na ko toogee ay ati ati ati ati ati at te bu ci dara ñaaw kontaan nañ bu baax bég nañu yàlla na yàlla dolli sutura yokk xéewal yi defal leen yoonu jàmm ak sutura sëriñ bi loolu la waxoon ne nañ ko jot jottali ci ay kàddu xam naa sax appoon na ko waaye tabaarikàlla asal xaale xëy na. daa waaw suñu tënee ñaan gi mën ko faral par kenn kenn ñëpp daal